sama gars yi waa Dream Body team Dream Body waaw kay sama waa team la sama waa team la sama sama équipe la c'est mon équipe Dream Body ca euh, euh, damay dem ci Kange euh, Kange mbaa yaa ngi feex yaa ngi ok bu nice yaa ngi nice ayca dañuy ñëw ci deuxième partie bi Kange ñu gis la nga créé li nga xamante ne moom mooy master class. Mhm. d'où est venue l'idée bi fan la la fan la la jóge fan nga jëlee idée wu créé li nga xamante ne moom mooy master class. waaw master class peut que mi ngi soog Sénégal. mais man yàgg naa def master class. yàgg naa ko def États-Unis ah. peut que man nekku woon master class bu ma moomal sama bopp. Mhm. mais daanaa dem ci ay master class yu bari depuis 2014. laa commencé dem ci ay hair show ci ay master class. Mhm. donc euh, mooy ki ma la doon wax fi ma doon liggéeyee noonu. donc moom bu euh, bu ma def master class man maay nekk coiffeuse bi nga am xamante ni mooy taxaw. like présenter modèle yi mhm. def style yi nit ñi gis ko et tout. Mhm. donc euh, ci ci loolu laa ko defee. Ah, mais mais mais tey est est master class bi nga xamante ne. Mhm. xam nga euh, euh, honorable kaa nga dafa dafa créer benn affaire muy master class bi ma lay wax. woo ay ay ay woo coiffeuse yi fi nekk. woo nit yi fi nekk. jàngal leen mooy peu de savoir bi nga xamante ne. macha allah car macha allah yàlla may na ko ko. mais est que loolu tey du risque. non du risque début bi biñ ne master classe bi moo ko waxee rek Sénégal ñu bari dañ ne quatre-vingt-dix pour cent bokk mën naa ne dañ ne bu leen dem du leen jàngal du leen jox ay secret parce que ah, mi ngi fi ñu ngi koy soog a def Sénégal alors que man dama jàpp ni man sama wërsëg man kàngestaaya dama koy lekk dama koy lekk. Mhm. parce que ñi nekk Thiès waa Thiès mënuñu déplacé wu ñëw chaque jour Dakar yi defaru ci kànge. ñi nekk extérieur ñi nga am xamante ni. ñoom ñoo gën a ñëw tànge mënta déplacé wu du dem ku ci nekk dëkk bi nga nekk di leen defaral donc ñoom ñëpp seen wërsëg la ñuy lekk ci coiffure donc ma ne bëgg na am li may def nit si bëgg nañ ko ñi ngi koy suivre comme li nga wax sànk lu ma génne ñëpp def ko ma ne mais pourquoi pas ma def like ma def ko woo nit ñi ñu ñëw xool exactement Kangué lan lay def ne pas dire que Kangué moo fi dàq euh, euh, am defar bopp chaque jour dama ko doon wax mhm. mais nit si bëgg nañ exactement li Kangué di def. Mhm. te bëggoon nañoo xam secret Kangué lan la. naka lay def ba naka lay def ba affaire yi naturelle naka lay def yan produit lay utiliser fan lay jaar. donc dama leen a woo ñu ñëw ma wal leen yoon bi exactement xamal leen tamit ne leen ci premier jour bi rek mënu leen si xam lépp mais di ngeen ci jàngat lu bari. Mhm. bu ngeen demee. di continuer di def di ngeen gën a gis seen résultat te ba tey ñi nekkoon ci master class bi maa ngi wax ak ñoom am na suñu bari ku nekk loo def like yaa ngi ma koy yónnee ne ma macha allah lii te biñ ci jugee képp ku fa ñëwoon kontaan nga like te man loolu dong laa si jublu woon. Mhm. te yàlla may na ma ci réussite total ma ci sant yàlla bu baax. waaw mais mais tey est-ce que tey mhm. ji Kangué produit yi nga xamante ne. Mhm. moom la moom ngay gis ci salon yi. moom la gars yi di utiliser. boo demee salon Kangué du produit yooyu nga fay fekk. waaw est-ce que tey loolooy indi perfection bi bi am ci sa liggéey. merci ah, produit yu bokkul. moo tax bi may def master class bi dama wut kenn koo xamante nii Modou mu ñëw assister ma ci master class bi jàppale ma si teg like quatre-vingt-dix pour cent produit yi mi ngi Sénégal parce que léegi Sénégal macha allah lépp ngi fi. loo soxla like États-Unis mi ngi fi. loo soxla Paris mi ngi fi. Mhm. lépp ngi fi. ma teg produit lépp wan leen exactement que ni Kangué lii lay utiliser ak li ak lii ak lii mais ñi jógee ci master class bi yëpp léegi man lépp lu may am utiliser ñoom tamit même chose la ñuy te tey ba nga defee master class ba tey amoo ci benn te dara changé wul benn benn nga toog rek ba ci yàgg par exemple koo xamante ne defal nga ko mhm. mu jàngee ci master class bi def benn affaire nga jékki-jékki tiit non tiituma est-ce que man tey jii waroon naa jàngal nii <laughs> non tiituma ci franchement tiituma ci fierté laa ci jëlee parce que ñu bari da ngay dem fay ay millions la merci man laaj biñ ne cent cinquante mille rek déjà mhm. ñëpp dañ doon wax <laughs> yéen a ngi dem day lekk seen am. du leen jàngal merci te du leen jàngal man kànge su ma demee États-Unis saa yu ma demee damay jàng master class bi ma mujjee def 3 euh, heures la ba 9 heures ci guddi maa ngi fay 775 000 3 heures ci ngoon ba 9 ci guddi 775 000 yu ma sëkk laa fay mais réccuwuma ko. parce mhm. que saa yu ma demee jàng rek dinaa am leen lu may gis lu changé ci sama liggéey donc loolu moo tax ma def ko fii ci Sénégal. mais léegi nit ci comprendre nañ exactement lan laa doon def te xam naa ne tey su ma ko waate waatoon suba jarul ma ci nekk di ci wax kom wax yi ma ci doon wax yëpp début bi parce que début bi nit yi comprendre ñu woon lan la ñu bari dañ yaakaaroon dama woote pour lekk xaalis patati patata des choses comme ça mais bon yàlla suturaal na ma am naa ci fierté mm-hmm. nit ñi kontaan nañ ñi fa ñëw ñëpp a kontaan donc loolu dong laa si jublu woon te suñu borom defaral na ma ko. macha allah waaw te yàqut dara aussi ci sama liggéey. Mhm. tey la ma nit ñi gën a bëgg. Mhm. tey la ma sénégalaises yi gën a fonk tey lañ ma gën a jàppale tey lañ ma gën a dimbali ci sama liggéey donc loolu dong laa ci soxla woon ku ci nekk la nga ci jëre yaa ngi koy jariñu te yàqalu ma lenn man aussi. Mhm. waaw. c'est très important loolu euh, euh, baax na nit yi xam ko aussi euh, wax dëgg yàlla te bëgguma rek mu yem ci ci coiffure képp ku yor métier fii ci Sénégal nga yaakaar ne lii yow war nga ko mën a partager. ñu mhm. ciy jàng si. jariñu si. non si bijou. a partager yow. ah bien sûr mais pourquoi pas. <laughs> ci moom laay ñëw. ak yow mii sax soo moo lay eh, mooy li <laughs>